ñi delluwaat ci yàlla dana taxit nit ñi xalaataat seen borom bu baax moom nag euh, noo ngi koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fii mu jóge sun borom doole ko yërmande doole ko xéewal doole ko njéggal doole ko leer euh, am nañu ak digganteeg moom sax waaye li gën a fësal sunu taxawaay tey mooy ndigal ndax moom taalube Cheikh Mouhamadou Mountakha la woon euh, loolu leeral naa ko sëriñ bi moom nu yebal nu ànd ak sëñ Abdou Khadir Ba ab sëtam ànd ak Cheikh Omar Bamba Diop euh, bëgg saaliw xelkom ak kuréelu isbu tarixi boo xam ne yëg ñoo doon yëkkati njàng mi ci biir euh, ngir yëf yi ni mu tëddee ak ni mu bettee te comme nun noo nekk ndakaaru nu ànd ak sëñ bi rek ñëw teew fi teewaay boobu nag am nañ ci am nañ ci mbég ndax ndigal la gis na itam ndax ki fi bàyyikoo ni mu demee ak sunu njaboot ak ni mu demee nun dem nañu ba këram fasanteeg moom wëllëre waxtaan mu doonoon nit ku baax ci société bii ñu nekk ndax nit ñi fi mu toll nii ku leen di delloosi eh, di leen di leen wax dëgg di wax mm, def leen ndànk waxtaan leen déggoo leen juboo leen yombatul te moom euh, ci réseau sociaux yi régulateur la woon boo xam ne bu amoon solo nit ku amoonub dal la am yar ami teggin nekk nag euh, une femme très courageuse très persévérante koo xam ne am na jom am na ngor ba diine ji nga xam ne mooy lislaam ji mu dugg yàqu ci dara ay doomam jàng nañu alxuraan ba wàcc euh, moom itam ak taalubeem lu mu rafetaloon la daan yónnee ci sëriñ bi ay ay ziyaaram ak i addiyaam sëñ bi ràññee ko lool itam li mu sori lépp sëñ baa ngi koy ñaanal mi ngi yónni eh, sëñ xaadim mi nga xam ne mooy doomi sëriñ Abdoulaat mu sëñ Moustapha Bassirou mu di ko nemmeeku kooki sax moo nu woo ci suba ñun ci ndigalul sëriñ bi yabal nu fi kon nag eh, noo koy masawu ñëpp nag noo ngi koy masawu réew mi yëpp di ko masawu borom këram señaali joor muy nit ku dal du ko masawu ak njabootam njabootam gi mu fi bàyyi yëpp nag ñi mu jural boppam ak ñi nga xam ne dañ ko ko jural te di leen wax ne nañu fonk lam leen doon digal te bàyyi it lam leen doon tere nañu rafetal seen diggante ndax lii rek mooy àddina maa ngi ko xamee jàmmalaay bi ma ko xam sax yaakaar naa ne Pam Dione tëkkagu ko Pam Dione mi ko yor nii ñuy dem dem dem yàgg musuma bàyyi benn yoon bu amee lu muy liggéey man jardinier laay liggéey ba amee lu muy liggéey lu man lay woo ba bi may bëgg a rek woo na ma këram ba tàgg lam ma wax sax tàggatoo man la mais moom ci li ma ko xamee de laa ko seere parce que ëllëg dinaa ko fekki liggéey rek laa ko xamee jaay na ndékki jaay na ay beñe ubbi na atelier tailleur fii ci ci ci ci école Dior bi muy avant muy toxu Wakaam école Dior la jóge dem Wakaam toxu fa dëkk fa nekk fa avant avant muy dëkk foofu man maa ngi ko xamee jàmmalaay ci liggéey bi may liggéey rek mu japp ma di ma dimbali toujours mi ngi may wo bu amee lu muy liggéey man lay woo bee ma ne waa mun ma kaay ñëwal fi nangam nangam ma ñëw liggéeyal ko mu jox ma léeg-léeg mu woo ma jox ma am lu ma jox ba ci màggal bi passé nii soo bu bëri la ma may ni ma mais bee de man maa ngi nii tëdd rek foofu ma dinaa jógam déet ma ne ko di nga jóg incha allah